ah ni ma gisee match bi rek mën naa wax ni daf may fàttaliku Sénégal la France ndax match bu nga xam ni yaakaar naa ne anglais yi boo leen di déglu gane nañ ko te joué ko ñoo ngi jubilé te match bi pareegul et je crois que France Sénégal 2002 vingt ans après loolu moo amoon yàlla na fi mu daan jaar rek mu jaar fa loolu rek laay ñaan et di wax ni tamit match bi comme ni ma ni ko sunu sunu entraîneur bu njëkk ba daan waxee rek tay non la ko Aliou di waxe yeneen jour yi dama jàpp que seen boobu moo dafa am match yo xamne ay jour la ñuy classer mais ay cours yàlla ñoo koy gagné. et Angleterre nak ñëpp xamna ñu ne seen xarañ ci xex ñëpp xamna ni moy championnat bi gën mag ñëpp xamna ni jour jours yëpp foofu ñu bëgg dem jouer en championnat. donc nag ñun ñoo ngi dajanteel équipe bu nga xam ni euh, wax ji dina bëri coow li dina yëkkati dina dégg lu ne mais li may wax rek mooy ñun on est dañu concentré wu si benn affaire moo di bëggal Sénégalais yi bëggal africains yi bëggal am réewu football yi nga xam ne tey jii yaakaar nañu si Sénégal dina métti nag mais euh, daf may fàttali encore li ma dinaa ko dellu Sénégal France métti woon na loolu ba ñëpp yaakaar na dañuy perte joué nañu match bi yaakaar naa ne benn journaliste fàttaliku fàttaliku wuñ ne joué nañu match bi ba mu jeex te amul benn corner Sénégal France amuñu Ben corner te teewul le nañu match bi donc pour rappel rek donc match pour nga il faut que soudé wu les benn muy supporter yi muy joueur yi muy ñëpp ñoo xam supporter Sénégal plus que jamais maa ngi leen di rek l'union sacrée derrière cette équipe là ngir yàlla may ñu dem on n'a jamais été aussi fort ma suñu gën am doole à jamais bu ñu nekkee Le site numéro un du sport au Sénégal, le sport.com